mii ñu ko wax euh, muallim mhm. boobu ñëwagu boobu ma bi Alaaji eh, ma waxtaan ak euh, ñoom maam Bukar ak wa mbokk daayira bi yëpp mhm. ñoom Pape Ndiaye tey Pape Ndiaye moo nekk sëñ Moussa ñu ni nag léegi dañuy def waxtaan mhm. waxtaan nag ñu ne luum yaa koy def luum ni moom du ko def moom nanguwul a bokk ci dara moom mooy forme ne nanguwul a bokk ci dara hmm. bi ñu ñëwee ñu def fa waxtaan léegi nag ñu ne nag dañuy kii te Sëriñ Moustapha def ko invité d'honneur bi mu ñëwee ma laaj mbooloo mi ma ni maa laaj man maa ñaan mbooloo mi suñu daayira bii tey nañu def Moustapha mu nekk président Sëriñ Mansour def ko président de mu ñu xalaatal ndax ku yàlla may xalaat la ko def ah Moustapha ñu ne ko léegi ñun mbooloo mi la ko ñaan ñun ñëpp say taalibe lañu mu ne moom nag nanguwul na taalibe amul ma ne ko déedéet loolu moo fi ndax demuñu kër bàyyi kenn dañoo bàyyi ñu ñëpp suñu kër maam ak suñu kër bàyyi ñëw sa kër bàyyi boo ko nangoo soo ko nanguwul yaay suñu sëriñ la Moustapha nangu ñu dem dem dem dem dem ba daayira bi am doole ñu créé fi benn euh, troupe théâtrale troupe théâtrale boobu ba ñu demee ba nga xam ne léegi ñu ngi koy def ñu ne nañu woowu démb yi faal démb ngeen waaw ndax ma nga lëkk ci waaw te ñu ne démb yi faal ku mën a fecc te théâtre bi ñu tuddee ma ñam bàggeen ñun duñ ko mën maanaam mën nañoo def pièce mais bu ci fecc waree ñun duñ ko mën loolaa tax nag ñu jëli démb bi mu ñëw ñu continuer nekk ci bu mu di ñu ne dañuy def rasmatu badri bi xeexu badar boobu léegi nag ñu ne Moustapha mooy joué Abu Jahl man maay see Utbatu bnu Rabia grand bu Kuri Gay bi rakk Alaaji pour yu Gay moom itam mu joué Shaybatu bnu Rabia nii lañ ko defee def nañ ko maanaam wut jaasi yoo xam ne dañ ko defal boo ko gisee nga defee nii weñ la mm-hmm. fekk peinture bi rek ñu def ci théâtre bu bu bu bu rafet ci mm-hmm. waawoon yëpp yow man nag li ma li tax ma rocceeku dama ne ñun bu ñuy def rek bu maanaam réputation pour war a pièce bi ñu war a jouer mm-hmm. dafay jël suñu temps bu yaatu te léegi ñun dootuñu mën a jàng te Moustapha nag moom jekku na boppam moom ñun suñu paree dañuy wuti lu ñu lekk wala téere bu ñu jënd moom nag léppam pare na man di leen man de du ma topp Moustapha ci loolu xam nga léegi daal nu may dama ma noonu laa génne ci daayira bi teg ko mooy président ñu jël Cheikh Gaye Cheikh Tidiane Gaye waa Tëngéej ñu def ko bi dem daayira bi dem ba yàlla dogal ba mu xumb ba xumb Moustapha topp pour war a dem jàngi Égypte te Serigne Cheikh nang nanguwul kenn ku jóge ci kër gi dem jàngi mu Moustapha góor góorlu góor góorlu fu mu jaar rek buntu mu doog a bàyyi la mu doon toppatoo Dakar ñëw Derklé kër Maurice kii Baar bi ci Derklé nekk fa nekk fa mujj mu dem Tiwaawan sëriñ Abdu ne ko sëriñ Cheikh Tidiane si nee na bu kenn jóge ci kër gi di dem Égypte ku fi jóge dem Égypte itam boo ñëwee doo raw ñu ngi fi nekkaloo te doo yore jikko mën na ñoo sàkk soo soppi sa jikko ni ko ñoom kalamba yi ñu ngi jiite daairatul mustarshidaati léegi yow da ñëw nga góoral leen ma jox leen turu daayira muy daayiratul mustarshidin waaye nag doo doon doo ko nangu ñu daal di def daayiratul mustarshidin maanaam daayiratul mustarshidaati wal mustarshidin léegi nag ñu ne déedéet na góor ñu jiitu ñu waa jigéen ñoo ko sos mu ne na góor ñu jiitu rek ci seen kaw ndax barke léegi loolu moo indi daayiratul mustarshidina wal mustarshidaati ah mbooloo mi defe naa ni xaw naa takku léegi ku taxaw maanaam ni maanaam boo demee ci waawoon soo ko waxee moom kenn du ko wér ci biir kër gi su ñu woon lii maa njëkkoon a nekk président bi te lañ fi daan sos luñ fi sos mu yàpp kon loola li ma bëgg a wax mooy dog yi ñu daan ñaan moo tax xel xalaatul ci àddina ni maa njëkkoon nekk ci njiit waaw moom koo waxoon kenn du ko gëm mais boo demee ci Tiwaawoon ci biir kër sëñ Babacar Si soo ko waxee ñu nangu ko kon lu ma bëgg a wax mooy waaw li ma bëgg a wax mooy ñaan nañu koy fonk ndax Moustapha nag doo doon doo ko nangu ñu daal di def daa'iratul mustarshidin maanaam daa'iratul mustarshidaati wal mustarshidin léegi nag ñun léegi na góor ñu jiitu ñun waa jigéen ñoo ko sos mu ne na góor ñu jiitu rek ci seen kaw ndax barke léegi loolu moo indi daa'iratul mustarshidina wal mustarshidaati ah mbooloo mi defe naa ni xaw naa takku léegi ku taxaw maanaam ni maanaam boo demee Tiwaawan soo ko waxee moom kenn du ko weer ci biir kër gi su ñëwoon lii maa njëkkoon a nekk président bi te lañ fi daan sos luñ fi sos mu yàqu kon loola li ma bëgg a wax mooy dog yi ñu daan ñaan moo tax xel xalaatul ci àddina ni maa njëkkoon nekk ci njiit waaw moom koo ko waxoon kenn du ko gëm mm-hmm. mais boo demee ci Tiwaawan ci biir kër sëñ Babacar Si soo ko waxee ñu nangu ko kon lu ma bëgg a wax mooy ah li ma bëgg a wax mooy ñaan nañu koy fonk ndax waa ji doon wax ci rajo bi di bàkku nee na aaya maanaam euh, salaatu bu jàpp quatre mille quatre cent quarante quatre bu ko indi ma jox la cent mille francs ca di bàkk naan bu kii sax ma ne ko man de su ma mënoon a téléphoné dinaa jël sa cent mille da moom nag ci biir wax ji maanaam daanoo na ci waxin wi xam nga moo tax xëy na jàmbaar la moom la ñuy wax xëy na sëñ Abdou Aziz Diawri waa ji di ko publicité publicité yu métti ma ne ko boo demoon ci sama bu ko Assane Diagne déggoon léegi ñu tuur léegi waaw yaa ayoon naa يا أيها الذين آمنوا اتقوا رب اه، اه، اه، اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مؤمنون ها إلا وأنتم مغوب إلا وأنتم مسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون دنين نك بو كان كي مانام آي بي نتي نك مانيكو أم نتي سورة الأنعام ذلكم الله ربكم واعبدوه وعلى كل شيء وكيل كون ñaari ay ñoo ci ñu tolloog salaatu naariya muy quatre mille quatre cent quarante quatre léegi euh, te boo xoolee démtaan bi ci yàlla def aaya bu ci nekk cent un cent deux jël nga ci sooratu Ali Imran soo demee ci numéro ba cent boo demee ci sooratu Lanaam cent un cent deux ak ak ak ak ni aaya yu sore yoo léegi nag ma ni leen loolu dafa junj ma ni leen soo gisee ñun suñu alxuraan bi lépp a ngi ci lépp a ngi ci biir alxuraan te salaatu naar yee neexu la jàng quatre mais nag bu la yàlla dogalee nga jàng aaya bi yaa ayyuhan fistu yaa ayyuhal laziina aamanuu ittaqullaaha haqqa tuqaatihi wa laa tamuutunna illaa wa antum muslimuun sëriñ bi tabaaraka allaahu kon nag loolu ma bëgg a wax ni suñu daara bi yal na ci yàlla def ndam ndam am na ci ba pare mais yal na ndam lu sax te yàlla nañ ko jariñoo te képp ku ci ñëw yal na yàlla defal la sa fajub aajo ni yi ñaan ñun kër suñu béréb lii ñuy taxawal taxawal mbir mu dem lu jafe la waaye ñu ngi ñaan yàlla képp ku fi ñëw aajo boo mën a am yàlla na ko yàlla bañ koo xam ne ku fi indee ajo du faj yàlla bu mu fi ñëw waaye nag ku fi indi aajo ku ne yàlla kese mooy mooy nangu daanoon na ci waxinu xam nga moo tax xëy na jàmbaar la moom la ñu wax xëy na sëñ Abdou Aziz Diawre ko publicité publicité yu métti ma ne ko boo demoon ci sama ñaari aay ñooñu ci alxuraan ñu tolloog salaatu naariya muy quatre mille te boo xoolee dénkaan bi ci yàlla def aaya bu ci nekk cent un cent deux dégg nga ci sooratu Ali Imran soo demee ci numéro ba cent un cent deux boo demee ci sooratu Lanaam cent un cent deux ak ak ak ak aaya yu sore yoo léegi nag ma ni leen loolu dafa junj ma ni leen soo gisee ñun suñu alquran bi lepp ngi ci lepp ngi ci bir alquran installation naa ne ko la jang 4444 ne nak bu la yalla dogale nga jang ay ya ayu ayoon ya ayu ya ayu li nga naan ta dogal ko xam tawaa wala to mun iran dogal muslimu suñu ni ko tabarak allah kon nak lol ma bëgg wax ni suñu daara ji yalla na ci yalla def ndam ndam amna ci ba pare mais yal nañ ndam sax te yal nañ ko njëriñoo te képp ku ci ñëw yal na yàlla defal la fajum aajo ñu ciy ñaan ñun kat suñu béréb lii ñuy taxawal mbir mu dem lu jafe la waaye ñu ngi ñaan yàlla képp ku fi ñëw aajo boo mën a am yal na ko yàlla faj koo xam ne bu fi indee aajo du faju yàlla bu fi ñëw waaye nag ku fi indi ku fi indi aajo ku ne. yàlla kese mooy mooy nangu ñaan. kon nag moo tax ma ne imaam Assane. nga di joxe ñaan. ndax am na loo xam ni yàlla ci boppam moo koy jox nit. ndax yonent bi nee na. képp kuy xëccu. ci njiit bu leen ko jox mu tudd matul njiit njiit dëgg dëgg dëgg dëgg ko bëgg. dañ ko koy forcer mais du bëgg-bëggam hmm. mais itam na xool ay nit ñu tànn la hmm. du yow yàlla hmm. kon balaa ñuy judd ñun dañu xamoon ni fii dana nekk béréb ab temps nag ñoo xam kañ la temps bii jeex ndax ala kulli xaal ñun dañ fiy jóg ñu ne dana am temps boo xam ne waa daara fajtal danañ am imam bu ñu tuddee alxasan jaañ boobu judd woo judd wu ma kon loolu iraadatullaahi la kon yàlla nañ ci yàlla jàppale léegi lay wax mbokk yi fi ma demoon ma ni leen El Hadj dafa doy tegtal ci nan la nit di toppe sëriñam ndax El Hadj Rawane dafa fekk El Hadj Malick dëkk bu ñuy wax Bàccaas ñoom ñaar ñu nekk fa ñu nekk fa ñetti at El Hadj Malick jóge fa maam Rawane toogu diir fekkiwaat ko ci defe naa Marina Medina Sall euh, ba fa nekkee. fekk si ko ni man kat defuma la mbokkum taal maanaam euh, mbokkum daara mm. man dama laa def sëriñ Maodo ni ko ñu nekk ñaari mbokk ñaari mbokk rek ñu nekk foofa nekk foofa te mam maam maam maam rawaan cosaanam bawal la ngomeenu mm. bawal googu la dëkk mm. dem nag sanc dëkk bu ñuy wax sanc Ali Ngom fa la nekkoon foofu mooy mooy dëkkam ci ginnaaw Paal boo ñëwee ba Paal mm. da ngay wuti soowu mm. foofu mooy sanc Ali Ngom mook Seydil Hadj Malick ñu <coughs> tase ndar ñu continuer nag seen loolu continuer continuer ba mujj Seydil Hadj Malick ni ko waaw juddu bu yonent bi te ñu ko màggal maam rawaan ni ko ay ca mm. Mam laji malik tari khaju kaw manam jang euh, bakara ba euh, ba kafi, li ci des maam rawaan jàng kaafi ba xooloo xosu bu rebi ñu xat mu ñaan ñu koy def di koy def ba mujj ñu jël burdu di ko way ndax burdu muhammadul Buseyri yi mi ngi bok ci tarixatul xaadir mom du tidian la nak ñu jël burdu di ko way ñom ñaar mbir mi mag mbir mi mag mbir mi mag ba mam rawan nibbi joge ndar ñew nibbi nibbi si sanci ali ngom ah Seydi El Hadji mali bu heure ba jotté mu déparé ndar ñew fekk mam rawan ci sanci ali ngom légui nak bu ñewé ñu takkal ko fa ci ak ci karu wa dekk ba ñoni wa rawan sa gu rafet bu set ndax Hadji mali degg na nit la ko xamni mm-hmm. tabarakallah dafa set boo gisé rek dang koy sopp léegi teen kaa wax mu ñëw sanc mu ñëw dëkk nga xam ne bu jógee wàccee ci saxaar gi rek ci coono du am maam rawaan ñu daal di nangu ndigalal mbooloom mu ñëw biir paala nga ca biir ñu may ko foofu mu sanc ko tudde ko daaru fii mu nekk nii maam rawaan a ko sañ nga xam ne bu Seydil Hadji Malick jógee ndar rek bu wàccee saxaar gi rek dañuy dox seen tànk rek ñëw loolu lañ daan def loolu lañ daan def loolu lañ daan def ba di ko jokk jokkal ba Seydil Hadj Malick ñëw ci waawa léegi nag bi maam rawaan nekkee xalifa astaghfirullah bi si nekkee xalifa daal di ñëw ndar ñu ñëw ci maam rawaan ni ko ah, Babacar si di ñëw na ma ndar ma nga mu dem ni legi kep koo xamne talib ga na nga dem taxani sa mat andi ndax booba gas amul boobu mat lañuy ñuy talib yeb dem taxan sen sayu mat taxanaaleel mam rawan mam rawan mo yanu sayo tak tak ndigli oh. jitu ak sayu andak ak ba ci kër gi maam rawaan dóor saayam ci suuf taalibe yi dóor saayam ci suuf sëriñ Babacar Si génn ni ko ah papa hmm. lii nag mu ne ko say wa ma njëkk a taxanal sa baay hmm. booba yaa ngi naam hmm. bi ma ñëwee ba dóor say wi booba yaa ngi seex weenu roqee ngaay yi xam naa buru bi sax tax na nga xaw a waay yàbbi ween wi mais nga sexaat ko léegi nag tey say wii day mujj a taxan sëñ Babacar Sy ko man di lii dëgg dëgg dafa ëpp di man daal bu sañoon hmm. da ngay ñëw ñaanal ma mais dootu defe ndax ndax sa jëmm mooy jëmm El sincère hmm. ba tabax ca Sidi dëkk Ndar de Ndar waaw Ndar hmm. Ndar foofa sëkk la won ndax dafa and ak El malik El Hadji Malick ne ko suñ maam Ibrahima ba mu tabaxee ba pare. Hmm. dafa sànni xeer. Hmm. xeer dafa tasaaroo. fépp fu xeer wu mag dal. Hmm. balaa àddina tukki dana nekk jumaa. fu xeer wu ndaw dal dana nekk jàkk. léegi nag mu ànd ak maam mu ànd ak di joxoñ kii ca ndox ma boobu foofu ndox la mu ne ko rawaan fu lay di xeer wu mag dal na. ndeke maam rawaan gis na loolu. dem ci gouverneur maam maam Maodo kii mu dem ci gouverneur ni ko dafa bëgg ñu may ko fu mu def jumaa ñu ko xanaa da ngay dem côté Ngalel ak yooyu mu ne déedéet moom daal fii la bëgg ñu ne ko non lii ndox la mu ne waaw man foofu laa bëgg tubaab yi wax wax wax ñu ko ah xam naa kii daal xëy na xel mi neexul da ñu may ko ko mu daal di oote sëkk di ko sëkk di ko sëkk ba mu nekk fu mu rëdd fa jumaa mooy première jumaa mu ñëwaat ba fi ñu wax faas tuddul woon faas kabdu la tuddoon maam rawaan moo ko tuddee faasu seexuna tijaani mais cosaanal dëkk ba moo doon kabdu maam rawaan daal fay def jumaa fii mu mu sanc ci paal moo ko tuddee daaru maam rawaan daal fay def jumaa muy ñetti jumaa kooku kon dëgg dëgg te nag bépp fajar mm-hmm. bala ñoo julli fajar dañu wàccee kaamil. ce que. ca jamono ba léegi. Mm-hmm. bala ñoo salaatu danañu wàccee kaamil ba pare ñu doog a salaatu ji ba tey ba ba biig def na. allah kon ñooñu. Mm-hmm. alxuraan mooy seen wéeruwaay. Mm-hmm. alxuraan mooy seen jafanduwaay. yàlla yàlla taat seen barke. te sàmmal leen. ndax jëmm ju baaxee na maam si Ahmad Bamba. di wóllër Seydil Hadji Malick ñu bokk lépp ñamu topp alxuraan la leen joxe ndax ki ki feebar nekk France dama bañ a tudd ndax yem ñëpp a ko xam bu ngeen ko xamul xam njabootam mu tëdd ba guddi mu gént gis yonent bi gént gis euh, Seexuna Tijaan yi gént gis maam Seex Ahmad Bamba gént gis maam Abdou nee na maam yonent baa ngi toog nii Seexuna Tijaane ngi toog nii sëñ Tuubaa ngi taxaw ci seen digg nee na maam Abdou Aziz mi ngi jàkkaarloog ñoom mbooloo mu bare bare bare bare bare nag ñu ngi ci ginnaaw xamuleen xamu leen maam Abdou Aziz la ci xàmme nee na Seexuna Tijaani mooy maanaam sëñ Tuubaa mooy déglu bu Cheikhu Tidiane waxee ba pare maam Cheikh Ahmad Bamba nee na dafay jot li mbooloo <coughs> mu ne nag li muy wax moom xamu ci dara moom li li li sëñ di wax mbooloo mi moom xamu ci dara mais nee na mi ngi gis yonent bi yonent baa ngi yëngutu nii gis ni daal lii sëñ Tuubaa di wax neex na ko lool nee na bañ pare mu sëggaat ci nopp ci ci ci Cheikh Ahmad Tidiane joxoñ ndaw si jigéen la ni ko ajjuma ngay ñibbi Sénégal léegi nag ndaw si bi mu yeewoo wax ko sama xarit ndax sama xarit moo takk doomam mu téléphoné ma ni moom ndaw si li ko jaaxal moom nee na sëñ Touba mu ci gis te moom du murit looloo ko jaaxal ma ni ko alaaxira murit ak tiijaan amul mm-hmm. xam nga ku fa am yonent bi ak njabootam mbirum murit ak tiijaan ñii ñoo ko créé nii am na ñoo xam ne ay dóorkat lañu rek mais loolu amul ndax tarixa bi ak tarixatul ahmadiya la tudd ak tarixatul ahmadiya ibrahimiya alxanafiya ak tijaani maanaam li tax ñu jëf ci tijaan yi mooy cheikhu tijaan yaayam moo dëkk ca dëkk mu wax tijaan ca Algérie hmm. looloo tax ñu naan tarixat mais tarixatul muridiya الإبراهيمية الحنفية التجانية كون طريقة بي طريقة المريد لا تود طريقة المريد لا طريقة بي تود واجي ما نكو منية المريد ibnu baba al alawi ca mauritanie liggéey na ci tarixa cheikh tudde ko muniyatul murid bëgg bëgg murid bi ah kon nag murid ak tijaan benn lañ ñoo bokk ñoo bokk ndey ak baay moo tax sëñ abdoulaat yal na yàlla yokk leeram ni woon la ñett ñu bokk ndey ak baay bokk ci benn ne kii xees kii ñuul kii xeereer benn lañ. parce que léegi ma ni ko. Hmm. sa goro boobu de yaakaaruma ni dana jóg. mu ne ma déet waaye looy wax sëñ ñang ma ne ko yaakaaruma ko de hmm. te maa ngi yaakaar ne ajjuma lay lay lay faatu wala bu faatuwul ajjuma ajjuma lañ koy jullee fekk naa jullee ko. ndaw soos fekk naa jullee hmm. ma ni ko. gis nga bis bu ñu demee yowmal xiyaam hmm. bu sëñ Tuubaa ñëwee taxaw ci buntu àjjana dana ne ana El Hadj ndax ñëw na bu ñu ko ñëwul mu toog xaar bu Seydil Hadj Malick ñëwee sëñ Tuubaa ak ak ak maam Seydil Hadj Malick ñu ne ana ana ana Seydina Limaamu ndax ñëw na ñu ne déedéet mu ne nañ ñox ñoom ñëpp noonu la ñu xaaral maam bu Kunta sëriñ si yëpp noonu la ñu ba ñoom ñëpp ñu agsi su boobaa nag ci la ñuy doog a ànd dugg biir ak su ko defee amul murit bi ak bi loolu moom fii la yem demul sax génnul sax réew mi fii la yem mhm. ay gars ko formé moo tax maam Abdou Aziz nii su la nit joxee mhm. ni la ban tarixa nga bokk roccil sa loxo xam ne seytaane kon ñun ñëpp benn lañ yal nañu yàlla boole yal na yàlla saxal ànd gi te nag ay nit fokk ñuy doo nekk benn kenn mënul dem ak sa bopp lu jiitu lu jiitu yeneen yi ñëw ba nit amagul ku ko jiite garab la utoon di ko mun naa nan yaay sama kilif fokk nit am kilif fokk nga am kilif looloo andi woon jaamu xërab mm-hmm. kon nag yàlla nañu yàlla dooley jàppale suñu daayira bi yàlla na gën a sax mm-hmm. loo xam ne dañ ko war a defar mm-hmm. buñ ci xuloo buñ ci xeex buñ ci ŋaayoo nañ ko waxtaane ci suñu biir lu gën a rafete ñu def mu dem ba mu wóor ko ni kii kat yow da ngaa ñu ni ko sa waay da ngaa moom lu rafet rek fi xaj mhm. te nag suñu daayira bi ah yàlla nañ ci yàlla may ndam ci barke yonent bi ci barke imaam Assane Gaye yàlla nga yàgg fi yàgg loo tëwér biig biig biig biig Alioune koy wax di ma ah. téléphoné mm. ni waaw ana suñu tailleur complet booba. complet waaw ma ne ko mooy mooy ustaasu daara ji mooy imaam. tailleur complet biig biig balaay. tailleur complet waaw. Aliou biig kon nag kon lii lu yàgg la. dëgg la yàlla nañu yàlla dolli sutura. amiin yàlla yàlla dolli xéewal. yàlla nañu yàlla dolli ndam. amiin ñi fi feebar ñëpp yàlla yàlla saafara. amiin yaa mubdi al baraya wa muiduha baada fanaiha bi nga xam ni ma nga bokk asmaul idrisiya yaa xayu xiina la xaya di day ma yoo xam ne secret boobu muy secret bu jafee jafee jafe jafee jafe jafe jafe jafe bu liggéey waaw moo tax ma ne Serigne Abdou yàlla nañ ko yàlla fa yàlla ndax dafa ne ma woon lépp tarixa tijaan jox nañ la ci digg lépp nag la ma waxoon nii nii waaw lépp ni gum mm-hmm. ma fàtte ko koo laaj mhm. ba mu dem génn àdduna ma laaj ko doom yi mu ni moom daal taxul ma ma dem a dem ba yàlla xamal ma lan moo tax mhm. mun ma woon bu ko liggéeyee kon maanaam mbir mi àgguwaay mhm. par àgguwaay la su ngeen gisee may wax nii mbir mi par àgguwaay la mais boo jaaree ci alxuraan dem na ko ne ko maam si Ahmad Bamba waxee rek naasikan bi xam nga baat bu nekk mënoon na ko jël mais bi kitaabu maska dariir yi ak mooy koo xam ne ak tilma xamoo ko dab biyadil xaaidil basiril muini anta isi wa maxfari anta jaahi anta kanzi yaa faxra kulla latibi sëñ Tuubaa ne ne képp ku am xel dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg sa mbég ak sa koom mooy alxuraan kon nag yàlla nañu yàlla jàppale kon ñii di génne ay secret ci alxuraan kenn amul seen bay yàlla rek am seen fay kon maa ngi jéggulu ci barke yonent bi tëjee ko salaatu naar ya ah tëjee ko salaatu اللهم صل صلاة كاملة آمين وسلم سلاما تاما آمين على سيدنا محمد آمين التي تنحل به العقد آمين وتنفرج به الكروب آمين وتقضى به الحوائج آمين وتنال به الرغائب وحسن الخواتم آمين ويستسقى الغمام بوجه الكريم آمين. وعلى آله وصحبه في كل لمحة وأنا في بعد في كل معلمة آمين يا رب آمين يا رب ابن مسيس آمين مولي باب بوب صلاة ابن مسيس مولي باب بوب صلاة تبارك الله تي li tax da naari ya dafay lakk aajo ni safara di lakk mat mais nag fokk nag ak turu yàlla da nga ciy sax sax ci sax ci sax ci sax ci sax ci sax ci sax ci ba ijaaba ñëw ñoom asan ñii ni ñu koy defee mu sàllas pour teg ko ci taa maanaam ci naaj yi rek lañ ko daan weer. pour nit andi leen xaalis. mais loolu mooy wane ni salaat bi kay boo ko lépp ngi ci. da ngeen toog ba ca kanam rek ni ah, amu leen nu ngeen kii. am leen liy jënde boobu boobu taalibe yi ci loolu lañu toll waaw am na ci tiwaawan hmm. boo xam ne moom laa njëkk a gis hmm. ajjuma ju jot hmm. dana leen di gàtt taalibe ñëw fa wàccee kaamil wax nañ ne secrétaire la am te nee nañu secrétaire yi boo demee ba am ci ijaab boo ñëwee fekk bunt bu ñu tëj boo ko waxee door ci rek mu ubbeeku ah. waaw kon secret boobu il faut xam nga lan mooy tur yàlla hmm. mooy bu ñu xoolee addina bi yëpp yëpp yëpp yëpp yaa ci bokk nga ci ñu gën a bare lu ñu koy tudd noonu la tur di yëkkatee ni mais boo waxee ñaari yoon bàyyi hmm. de dañu xool addina bi yëpp kii lim ko ci wax kenn waxu ko hmm. ci ngay dem nag ba nekk ca kaw tiim gaañe ko noonu la ñuy tiimee nit waaw su ko defee kon yàlla nañ yàlla defal loolu yàlla saxal ñu ci xam ne tur yàlla moom ala kulli xaal mu ndax ah, nu mu tuddee ci sama sama doom di yaat dañoo sàcc ay bagage am mm-hmm. ne ko waxoon naa ne fii nañ ko def biri mm-hmm. ma ne ko sac bi def na warul mm-hmm. mais it yow nga lu la warul ndax li nga am ci gàllaaju sàcc ci mosoo cee def benn mm. kon yow amuloo amuloo droit di acquis sa sa gàllaaj defoo ci dara mm. buñ ne kër doomu imaam mm-hmm. nangam a nangam doomu Cheikh Tidiane la ñu sàcc mm-hmm. est-ce que def na lii tax kenn du ko sàcc defu ko am na ku ma doon yónnee benn secret mm-hmm. yónnee ma ko wax wax wax ba pare ma ne ko nag comme da nga ma daan laabiire secret bi danaa la ci laabiire secret bi mag ñu wax nañ ni su fekkee yàlla nangu na ko hmm. boo ko bindee ci morso bu ñuul ku ñëw di fa sàcc daana koy dàq mais est-ce que def nañ ko dañ la ko jox ne la nii mbir mi balaa wér dëgg-dëgg suñ la ko joxee da nga koy essayé di ko def di ko def di ko def mais denc amuloo dara yàlla xam na ko boo tur wuñ la jox te liggéeyoo ko amagoo dara waaw nit ñi kenn ku ci nekk li nga denc amagoo dara hmm. léegi tey bu loolu amoon ñu ne laa lii kan moom bu ubbi ndax soo ko ubbee sàcc bi bu ko indi dafay faatu nga am ko gëm ko. mais defoo ko. am na ko aynul yaqin mais amoo ko ilmul yaqin. mu nga am ko ilmul yaqin. ilmul yaqin boo ko yóbbu ma man yàlla tam anam man yooyu yàlla man secret bi ñuy ànd ak xaw ma naka di ñu boo juróom-ñaari unku yu ñu te seen geen daggul mooy ànd ak secret juróom-ñaari unk yu ñu rey te benn geen daggu ci lu jafe la daal ma ni ko daal leen unku alxamis unku alxamis ñu rey ko nga butti ko taqale ko ci sa tànk sa ñaari tànk ji ku tibb sa tànk dem barsax moo tax tibb tànk kenn du ko defee kii da nga koy defee pour wala leneen ndax mën naa am ndax loolu sàcc yu bari xam nañ lool même sàcc bi la sàcc boo ko tëbbee mu nga ko wóorul kon nag yàlla nañu yàlla jàppale man nag damay surgëb jaamu ah. waaw te damaa yendu àll. waaw damay dem demande ex xaw ma nag. demande explication. waaw ndax nit ki su la fonkee. da nga koy yëgal ne ko fonk naa la. yëg naa nit fonk nga moo tax ñun taalibe yi dañoo ñoo baatal ne duñu yore jigéen. loolu la ñuy wax dañ ne taalibe yi jigéen duñu yor dañ lay fase mooy ñàkk ngor rek. Ah, kon nag yàlla nañ yàlla dolli sutura dolli xéewal bu baax